Sénégal. cirë ngeen jëf kilifa diine yi ñuy sàllaw ak di leen ñàkk teggin ci réseaux sociaux yi taxaw nañu temm ci mu dakk l'observateur moo ko bind ubbil yéenekaay bi kilifa diine ci réew mi ñu bari ci ñoom dañoo mel na ñu ci kaw gi ki ci njëkk yéenekaay bi nee nañu moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des mourides keroog samedi ci cérémonie officielle bu màggalu Kazu Rajab gi fa xam le ne politiciens yi ak ni nga xamante ne ji noonu ñuy ragal la ñu xamul lan la ragal la wax ngir bañ ku la ca wax dara te loo wax ka la cay wax dara tegu ko fenn lu dul ci intérêt boppam ni ko Cheikh Bass Abdou Khadre ñaawlo l'observateur ne nañu noonee la ko sëriñ Abib Si moom sëriñ Abdoul Aziz Si Dabax ñaawlo ci cérémonie officielle bu gàmmuk Jagsaaw gi nee na mbir yi jéggi na dayo ñoo ngi seetaan aka bay bayet loo léegi ba benn kilifa diine ñemetut a wax ci mbooloo ndax bañ ko ko ñàkk teggin te ñi koy def bàyyi lu ñu ko kenn ca Medina Baye dégg nañu Cheikh Khouraychi Niass moom El Hadji Ibrahima Niass muy ñaawlu song gi nit ñi jugtee léegi jëmee ko ci kilifa diine yi te li yéenekaay bi nee nañu xalif général bu Medina Baye di Cheikh Mahi Niass moo njëkk a yëkkati kàddoom di ñaawlu ak a naqarlu ni ñuy saaga ak a ñàkkee teggini kilifa diine yi bés bi le jour nañu dëkk bi di Touba am na lu ko mitti lool ca la fa xewoon keroog ba fa Ousmane Sonko jaare Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ay kàddoom ci yéenekaay bi muy xamle ne Touba dëkkub Serigne Touba la bopp ñépp ko war a wormaal duñu nangu kenn di ko yàq te it loolee jaral koo fa defati Les yéene kaay na fa la ñu gonte leerale li tax keroog waa police toj otom génnee ko dugal ko ci seen fourgon blindé bi yóbbu ko ba këram Ousmane Sonko nee li tax police yi doxale noonu moo di dañ doon bañ ñu dóor ko ballu fital ci yoon yi moom Ousmane Sonko journal lay fa nañu yamu ca ndax nee na yi ci opposition bi bu ci Macky laalee kenn askan wi ca palais ba lañ koy fekk fekk ko ñu génn fa dem ci libération mi ñuy wax ne moom Ousmane Sonko am na keneen ci waa këram yi ku ñu jàppati Abdoulaye Thomas Faye la chargé de communication bu parti Pastef ca Kaffrine tuumay woon nit ñi ci fitna di appel à l'insurrection loole la ko jàppee ni ñu ko jàppee ca Podor ñoom waa parti Pastef bu dakkul du jur jàmm ci waa kër Macky yi yëral xët mu njëkk Walf Quotidien yéen kay bi ne nañu ginnaaw lu ëpp ñetti millions ñuy dajale ci jublu moo di dugg ca Fuuta dajale askan wi muy mag di ndaw di góor di jigéen wax ak ñoom ngir ñu waajal élection présidentielle yi 2024 yi Walf Quotidien bind ne Pastef mi lawal ay banqaasam ca Île à Morphil ñaagis ga ca Casamance libération ne nañu foofee toj na mokk na rumbax princesse de ñaagis Victorine Ndeye maire bu ñaagis doon ministre microfinance yéene bi nee nañu moo fa woote woon ab meeting àndoon ci nag ak leader yi Bokk Samb bokk ci kilifa ya fa teewoon bi nee nañu xamle na fa ne Victorine Ndeye léegi ñun jàppee nañu ko suñu beneen Alioune Situé Diatta borom parti RV dëgg moo wóor di Pape Modou Fall Tribune nee nañu moom ma nga woon keroog dimanche ci diwaanu Kaolack ab conférence publique la fa woote woon ngir doon fa fàttali askan wi ak diwaan li président Macky Sall liggéey ci Sénégal moom directeur emploi yéenekaay bi nee nañu jox na fa jeunesse bi message bu fort ñu wormal kilifa diine yi ci réew na ndaw yi pexe yi nguur gi teg di programme xëy ndaw ñi ngir askan wi rawatina jeunesse bi mën a am liggéey week-end bi l'observateur mi ngi ñu cey wax journée d'excellence bi amoon ca Nioro keroog samedi la woon ci teewaayu ministre finance ak budget di Mamadou Moustapha Ba moo fa jël kàddu gi ñaawlu fa réseaux sociaux yi ak ni ñu tàmbalee sànq xale yi xale yi gën a ci njàng mi atum 2022 bi nee nañu moom la IEF ak conseil départemental bu Nioro tànnoon ci ñoom lu mat téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn doon leen sargal ak neexal ngir gën a ci wàllu santé bi nekk ci giréw te boobee ba léegi dégguñu société civile bi ñu wax ji naka noonu it way politique yi pat patiral googee ci am yéenekaay bi nee nañu moo jaaxal lu bari beneenub laaj bu sampe ci beneenub yéenekaay moo di ci la Tribune lu aju ci rapport bi fi Cour des comptes siiwaloon mu jëm ci niñ doon doxalee xaalis bu fond force covid 19 bi am ñu ci joxar bi baaraamub tuuma ñooñee lu sonal bi laaj ana fan lañu toll ak ñoom